عنين فإبليس في بحر ما ينبع DSTV ñoo ngi lay ñaan nga abonné nga bës ko la sa notification loolu mooy tax vidéo mu dugal rek nga mën cee jot leen fàtte aimer partager jaa ngeen jëf عنين فإبليس في بحر ما ينبع كانوا عبادا بطاعة لربهم وكان جل لهم ربا بمناته كانوا يعودون ترك الورد مع صبع من الحلال من أسباب المصيبات كل أرقى ستر ذا حلك خاموا شراعا لإحياء الجنات باعوا فضولا بذكر الله خالقهم فنوم في الليل باعوا بالمناجات aouzubillah bisimillah inna waliyallah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu leen ni commencé ab liggéey sant sëriñ Touba Touba Mbadiène Mbadiène Jingali nekk région Kaolack nekk la 12 mars bis bi bisu tey bi commencé nañ liggéey bi bis ni tey si fas yéene sant Serigne Touba jëmale ko guddi ci barkeb sëriñ Touba ñu ngi koy tàmbalee nag di musli seytaane di ñaan suñu borom jamu ak sutura xewal kep ko xam ni baye nga sa yitte ñew ci bes bi ñu lay ñaanal suñu borom yalla na la defal lu kawé sa njot ci barke borom tuba Xaadimu rasul ñu lay ñaanal jàmm ak sutura ñi ngi tambali bes bi yalla nañ ko yeggale ci jàmm ci barke cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu rasul ñu koy teunké nak di ci ñaan yalla it di ñaanal ñëpp di teunké ay bayti xasida ak ay alxuraan ak ay bayti xasida waaw di si fas yéene lépp nag nag ñu dugal ko ci liggéeyal Serigne Touba rek nag waaw aouzu billah bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani rahimi maliki yawmi din iyyaka nahbudu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqima siratal lazina an'amta alayhim xayril mahdubi alayhim waladdaalin al amin li ilaafi qurayshin ilaafihim rihlata sitaa'i wa sayfi falyahbudu rabb haazal bayti lazi at'amahum min juu'in wa aamanahum wa wajjihhu bi sugri bila kufran tukfa hisaabahum ma'a niran yaa sal jalaali yaa mu taxaali yaa xayra waali ajib doxaan yi ñaan gi ñu ngi koy sàkku di ko ñaanal mboolem ku ñëw ci bés bi ak mbooleem ku ko dégg te ñëwoo fii ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm rek di ñaan tàmbalee ko si bisimilahi rahmaani rahim yeggalee ko si alhamdulilahi rabil alamina di ci di ko mottalee ay kàddu yu soññee bés bi lépp loo xam ne maa ngi ko ci wax toujours soññee laay def rek man waaw ma man daal si wàllu soññee bi laay lay laay kii toujours maa ngi koy wax si groupe daayira Touba Masalikul Jinaan toujours li may wax sama mbokki taalibe yi nañ fonk bés bii te gën koo jàpp xam ne laxasaay la bu ñu waralee liggéey la Serigne Touba te sëriñ Touba ñemewul bor daam ñemewul bor de am na lu mu fayee te ku ko liggéeyal dina la fay loolu maa ngi koy soññee sama mbokk murid maa ngi ñaan yàlla it képp koo xam ne nii bu boo toogee ci àll bi dégg ñu tudd mbajeen nga gestoo bu bés bi ñëwatee fexeel ba bés bi yóbbaaleel la dara waaw fexeel ba bés bi yóbbaaleel la dara mbajeen ñun dé mbaj lañ sant suñu ciosan deug deug deug deug bama waxtane ak magi dañ ne ma mbaj dé mu ngi soso fonde fonde sa futa jaar jolof ñun nak li indi salum, moy li fi indi won kilifaay diine yi ngay dégg ñepp ñu lay ñu ñuy taxawali bes mo fi indi won sunu maam ñun mu nga jóge won fële sa mbajeen gu ñuy wax mbajeen ngéeneen mu nga sa sen sunu maam jooju mu ngi tuddoon Paate Ndàppa Mbaj woote Maba Joxu booba nga déggoon Maam Mor Anta Sali wuy si woon na ko ñaseen yi ngay dégg fii si Saalum wuy si woon nañ ko ak ñi sant Kanak ñi sant Busaak ñu si bari Xummaak ñoo ñëpp maanaam boobu Maba Joxu dafa dajale woon daanaka sëriñ ñi seen Kajoor gee Bawol ak fu Jolof ñëpp dajale leen fii ñuy xare di taxawal diine lislaam loolu moo fi indi woon sunu maam ñun léegi ba Maba demee ba euh, daanu sa xare ba ca Siin fa la Maba daanoo ba mu daanoo nag doom ji jël ko ñu koy wax Seyer Mati Seyer Mati nag dem a dem a dem a dem ba tubaab yi jaxase kook sëriñ si am na sëriñ yoo xam ne sax da leen rey ñii mu am ñum kii ñii wàññeeku dellu fañ jóge woon ñii ñun nag sunu maam ba mu fi jógee fële la euh, penk lu jublu ba sañ ci tabanaani ba mu demee sañ ci tabanaani yaakaar naa dafa ba mu fa nekkee ab biir dafa wàcc liggéey si lima ma si si si si si si histoire ñu ne domi doomi lam la am ñeenti doomi góor dégg it am ku jigéen wa yaakaar naa amul njaboot man naa am dafa dundut wala nangam wa ñeenti ñu góor ñi man xam naa leen waaw dégg nyu nyu ñooñu nyu meññ ñun ñii mooy eh, ku ñuy wax wàkk jaara wàkk jaara tu la tuddeewoon ma ba joxu waaw wàkk jaara moom la tuddeewoon ma ba ku ñu si topp muy Moustapha Jaara ak Samba Yaasin Mbaj ak Jabel Kumba ñi la meñ xam leen meññee moom ñooñu bam ba seen baay waay waajur wi wàccee liggéey ah, sanc Tabanaani dañ faa doxee jëm si waat fii Saalum fii dellu si waat fii dégg naa ba ñu fi ñëwee jaar nañ fi ñàpp balax ak caareen xàll gii ak caareen jisa caareen gisa ba ñu fi ñëwee dañoo wax ne ñoo xaw seen doomu nijaay ñoo bokk ànd laxas dëkk ba mu wàkk wax ko ne ko tuddee ko caareen ñu tuddee ko caareen moom moom wàkk moo magoon ci famille bi waaye ba magee si moom ab armée la ma nga caareen gise waaw ba mu fa jógee nag mbuus jaara ànd ak njaboot gi moo moo ci mag mu ànd ak njaboot gi dem sañ ci mbajeen wàllu gële mbajeen gële léegi nag ba mu sañcee mbajeen googu moom mooy mbuus jaara moomu waaw léegi mbuus euh, mooy ñoom ñoom ñii ñooñu meññ ñun mbajeen jii lu ko indi dégg naa dañ daan jógee koo mbajeen gële doon jaale ji fii kër Omar kër Omar fii benn dëkk bu nekk fii bañ dëppee ñu ne xaw ma daal am euh, mot soxna ku ñuy wax mot soxna mbaj moom it moo mat moo mag si sët yi moom sañ ci tabanaani la juddoo moom dong juddoo sañ ci tabanaani si sët yi mot soxna mbaj la sëñ ma waaw mot soxna mbaj la tudd léegi nag bañ defee ñoom ñu ñëw fii léegi ba mu ko defee nag ñii moo ñooñu meññu nag ñun waaye nag Moustapha Diarra ak Samba Yacine nag ba boobu fekk na wàkk seen mag wàcc waaye ba sëriñ bi wootee dañoo wuy ji ñoom ba sëriñ bi wootee dañoo wuy ji wooteeb bi waaw ah, dinaa dinaa si ñëw léegi ba sëriñ bi wootee dañoo wuy ji sëriñ bi si liñ ma wax si histoire Moustapha Diarra fekk na sëñ Tuubaa xomaak fekk na ko Thièyeen fekk na ko Njaarim am na yoon woo xam ne dégg naa moog sëñ xomaak yoonu xomaak woo moog sëñ Mbay Mbuuma ànd sëñ Mbay Mbuuma Njaay mu ngi fii Mbuuma moom lañ tuddee kii sama rakk la sëñ Mbay Mbuuma Njaay moom maanaam sëñ Mbay Mbuuma ba mu demee jox boppam sëriñ bi da ko boole woon euh, ku ñu wax ku sant si la ku nekk côté Thielmaxa na ko bu la gërëmee gërëm naa la léegi Moustapha it ba mu demee ànd ak euh, sëñ Boy Mbuuma ànd ak euh, euh, ànd sëñ Boy Mbuuma sëñ Boy Mbuuma da ko booleeg sëriñ bi sëñ ah bi da ko booleeg sëñ Boy Mbuuma ne ko bu la ko gërëmee gërëm naa la waaw léegi Samba Yaasin nit jéggi ay tànkam rakkam la mu dem foofu mu boole ko Amadou Fa Jamañang waaw ne bula bu gërëmee gërëm naa la moo tax ñun ñii waa ñangeen lañ ñii waa Mbuuma Njaay Wow, limo indi loolu te loolu lepi si sering bi la Wow, waaw moom it wa it ku ñuy wax Abdou Karim Mbaj mag la ci man ay doomam a masa ci dëkk bi moom moo sa nettali nee na moom Abdou Karim moom ma keneen nett luuma ko mu nga mu nga yowmal xëy am nag yàlla na yàlla woyofal suuf sering koom waaw doa moom moom moo waxoon ne ma Mous Diarra ba mu Serigne Touba laaj bi nan nga mune ko santu mu ko mbaj mu ko mbaa ndax mokal nga alquran mu ko mbàkke noo ngi si ko moy sen wal lolou serigne bi moko wax mustafa jara wa ba pare nako askan dafa for askan dafa for je nak serigne bi xam nga mom daan yeggali wax da kaa ak mbokk lañ sa fouta si soxna jara mbaje nak soxna jara ak soxna jara ben famille lañ wa lolou moo taxone ko askan dafa for na bom mu nak diko geustu ba nga xam xam lim mu serigne bi kay di man gisoon nako ko fii si nijaay wàkk waaye xeyna na dama ko sofontalon ba geluma ko garde ko waaye man histoire luma ñor la waaw waye non lol ni la demee waaw li mo indi fi nak manam bes bi yit xam nañ japp naa man du bes bo xam ni sahir kesse ko yor am ci waaw barke barkeb tuwa touba mom du joru fenn di di di kumom mom bes bi sa yu ñewé dana jaaxal ñepp dana len jaaxal sa yu ñewé day gëna yok day gëna tawfiq lamay wax gaay toujours len saa yu ñëwee nañ fexe mu yóbbul ñu dara ku ci defutit bés bi dana dana la fi romb te dana jag te gisuma lu koy teree jag ci barkeb sëriñ Touba. sant yàlla di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant sant suñu mbokk kii ci jiitu di Modou Mbaj nekk xalifa ci famille mu nekk ko am Pastef si yoonu sëñ Touba mu am ko wax dëgg yàlla mag ju mag ju mag ju mag ju baax ju bëgg mbokk. ah bëgg liggéeyal sëñ Touba bëgg alxuraan ndax daara kër gi ñu nekk samp na fi daara alxuraan am na ay xale yu fi mokkal alxuraan loolu ñu ngi ko ci sant di ko gërëm kon la waxoon maama Mbuus Jaara ca njaarim moom moo ko feddali ci alxuraan wax dëgg yàlla ñu ngi sant bu baax a baax kontaan nañ bu baax a baax a baax bés bi yàlla na ko yàlla fëlandi yàlla na ko yàlla yokk yàlla na ko yàlla barkeel ñi fi ñëw ñëpp yal na yàlla may leen jàmm ak xéwal ak sutura moom it yàlla yàlla may ko kattan ak man-man ba mu gën a yokk dooleem ci liggéeyal sëñ Touba ñu leen di gërëm di leen sant asalaamaaleykum wa rahmatullahi di ziar ñëpp si bis bu sell sell bi ñuy amal fii si Touba Mbadiène di bis bu am solo di cant li gën a yokk tax ñu ñëw fi muy suñu genn wàll ku bokk suñu muy suñ Modou Mbagne mi ñu xamante fële ca réew ma waaye dañoo dem a dem ba ñëpp yaakaar ne dañoo bokk ndey ak bay ngir ay jikkoom yim ñu won rek ak bëgg akuk taalube ak bëgg Serigne Touba ba feñu nekk sa Grenada Touba Grenada daayira Serigne Touba bo fa nekk ñëpp ñëpp ko ci xam ñëpp ko fa xam maanaam dëkk ba daal képp képp maanaam ñi ay murit ak ñu dul ay murit ñëpp ko xam si aw melom muy melow wu baax lool te yéeme xam naa ne dañoo mënewul kàddu dañoo mënewul a wax waaye daal ñu ngi leen eh, seedal daal ay seede si moom yoo nga xamante ne daal Ah, eh, ab mouride dal nepp nu am mouride wara mel dal mel na ni si bëgg seigne touba ak xol bu rafet ak ak yaatu té lool rek moy doomu aadama nak lool mo sabab ñu ñëw fi euh and ak mom ci bis bi ñi ngi ñaan dal suñu borom yàggal ko fi lool té ñu yàgg fekke bis bi ci barke للمهتدين جميعا بالفيوضات daayira Masaalikul Jinaan bu Touba Mbadiane tey jii di seen bés bi doon wàcc depuis daaw bare ñu di ko waaj ba tey jii la bés bi nga ñëw fii nag ci kër Serigne Touba gi dugg si ci waañ wi fi mooy waa waañ wi ñu dugg si nii ci waañ wi nekk ci bés bi ñun ñëpp ngir jëmmal bés bi ak taaral ko rek waaw di ci sant yàlla nag bu baax a baax a baax di la jaajëfal yow tamit di jaajëfal waa daayira bu baax baax di jaajëfal suñ jeewrin yi moy président bu jigen bi xalé jigen yi nga xamne ñoo bok ci daara bi ñoo nekk ni sol seen i tiset ngir jëmmal bës bi ak ko rek di ñaan at mu jot bu ñëwee gëna neex ren di ñaan ci doole sëñ Tuubaa mu yag lool ta neex yi doole sëñ Tuubaa gis nga ko wañu dal mo moo nekk nii xale yu góor ni ci wañu di raxas jeeg yaa ngi nii sol seen hôtesse nekk ci wañu yéen ko nekk yaang ci la nga man noonu dal lañ ko daan doxale at mu jot waaw di ñaan nak mu sax lool yàgg lool neex lool ci doole sëñ Tuubaa. maa ngi gërëm waa daayira bi yëpp góor ak jigéen mag ndaw maa ngi leen gërëm di leen sant di leen delloo njukkal maa ngi gërëm sëriñ Tuubaa nii lañ ko doon defee an mu jot ñu ngi ci waañ wi xale yaa ngi nii taxaw sol seeni otees jéeg yaa ngi nii si biir waañ wi di togg xale góor yaa ngi raxas nii lañ koy defee an mu jot sant sëñ Tuubaa la ñuy def an mu jot ñi ngi sant sëñ Tuubaa fukki at ak juróom juróom-ñett ci ren 18 ci ren ñu ngi koy def bés bi ñu ngi gërëm ñëpp di gërëm ñëpp di sant sëñ Saliou di sant sëñ Baar Mbacke di sant sëñ Mountakha Mbacke yàlla na fi yàgg te wér ñu ngi sant waa mbay sëñ Mbay Mbuuma Ndiaye ñooy suñuy sëriñ ñu ngi leen di sant di leen di gërëm. kum wa rahmatulahi yéen waa daayira Masaalikul Jinaan bu Touba Mbadiène ñu ngi leen eh, sant di leen gërëm di leen ñaax pour yokkute. jigéen ñi jàmbaar lañ lool jigéen ñi jàmbaar lañ lool góor ñi jàmbaar lañ waaye jigéen ñi jàmbaar lañ lool wàllu gunnee daal jigéen ñaa fa man ñoom ñu ngi leen di gërëm di leen sant gone yéen ne ñu ngi oteesu nekk ci waañ wi ñoom ñëpp di def luñ man ak luñ mënut jar na ko xëpp na ko ndig bésëb sëñ Touba yi yàlla na fi yàlla na fi yàgg te sax dàkk yàlla ñu teewe ko ñepp téwé ko man Ousmane ma ngi leen di nuyu ku ci nek ak sa tur ak sa sant yéen waa daayere bi ak yeen ñi nga xamné ni yeen yéen ñu fekk li ci di ñu dimbalé ah samay wax nak ma ngi ko commencé ci euh di sante señ Bay mbuma ndjay moy ki nga xamné moy suñu wasi la ah nekkon nak suñu papa suñu papa nekkoon nag moom di ko liggéeyal nekk si gannaawam. mësta humpanteeg ñoom moom di sëñ Mbay Mbuuma Njaay sa mbuuma di di sant lool waa kër sëñ Mbay Mbuuma rawatina sëñ Mbay Njaay mi nga xam ne moom moo toogal fii euh, sëñ Mbay euh, Mbay Mbuuma Njaay di si euh, toftal sëñ Cheikh Njaay ba si sëñ Naabo tuuti ba si sëñ Naabo Ramatu di leen di sant di leen di gërëm ndax lii yëpp ñoom ñoo ko liggéey ñom ñoo fi neewon nak suñu papa di wak mbak mbaj di liggéeyal Serigne Touba hat mu jot daraan def siyaare bu ne mu yóbbu mu yóbbu fa nak di ko di ko Mbay mbuma ndjay ngir jëmmi serigne Bamba ah gannaaw lolu bi nga xamé ni suñu papa euh, def euh, def na fi ci euh, ki daayira fi ci Mbadiane daan fi sante sering Serigne Touba dafa dem ba nga xamné ni Euh, dem na ba cant gi xëpp ko doole xamut ko ko ci jàppale léegi nag euh, mu xaw a taxaw tuuti di kenn ki xam ni mooy mooy xaritam di was di euh, xaritam dëgg muy sëñ sëñ sëñ Abo Mbakke moo toog ci xilaafa gi sëñ sëñ Fallou ah ba mu fi ñëwee mu ne ko ah man de wax dëgg yàlla ren de defuma sëñ cant gi mu ne ko ah lu tax wàkk mu ne ko xanaa rek jamono. mu ne ko waaye nag sa sa cant gi arrêté wut sa cant gi mu ngi wéy di mu ngi wéy di law mënoo ko nag waaye dana xam ñu ko xam ne nii danañ ko rek ko yëkkatil ba tey mooy mooy cant gi mooy kon xam ni si la euh, sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ euh, sëñ Abo Mbacke waxoon moo nekk nii rek ah li nga xamee ne nii euh, sëñ Abo wax na ko sama baay wàkk mbaj mi nga xam ni moom ku seey la woon sëñ Touba mook sëñ euh, moodu Mbaj mooy bàyyi alaaji Mbaj moo nekkoon ak moom ci dëkk bi di liggéeyal Serigne Touba ñëpp nekk benn ñu dëkk ak ñi nga xam ne ni ñoo xam ne nii son waaye wax dëgg yàlla ñuy neex a dëkkat mooy ndaw kundaay ak njaayeen yi jàppal ñu jàppoo fii lépp lu fi xaw euh, mu dee euh, safaan dañ koy toogee waxtaan benn ndawal buur du fi ñëw lépp ñoom ñoo doon ko réglé ba jëmmi jamono tey ba bayee ko seeni sët kon wax dëgg yàlla gàcce ma wa a inni a'uuzu bika wa zurriyata min as-saytaani rajim rabbi a'uuzu bika min hamazaati sayatini wa a'uuzu bika rabbi ay yahdurun muy fii si Touba Mbadiane nekk ci diiwaanu Saloum muy boo génnee Kaolack ñi fi amal édition bi nga xam ne tey jii nii mooy édition 2023 di ñaan yaa koo fekkee muy loo xam ne ak màggala goo xam ne chaque année dañ koy def waaw di loo xam ne chaque année dañ koy def jëwriñ yëpp yi nga xam tay jini ñoko jité ku ci melni ni Abo sëñ Dabo ñi nga xam ño nekk si bobbi bi di leen ñaanal suñu borom gën leen a kàttal kàttanal gën leen a ba lepp lo xam luñu def la suñu borom yombalal leen ko. ginaaw gi nak parce que du ñom kenn kese ñom ño jité mbir mi amna ñeneen ño ñi ngi si gannaaw ño xam ñom ñoom ñëpp ñi ngi jàpp japp si liggéey bi di ñaan mag ñi nga xam ñom ño ñoo li lii te jiitu woon donte nga xam tax melutoon ni di ñaan suñu borom suuf seen kaw lepp lo xam tay jinn luñu lu suñu karam mu dem ba nga xam dañu ñu ëpp doole yag ko fekkee ay ati at wax deug yàlla bés bi moom mbégte la bés bi moom la chaque ané nak ñu ngi koy amal di ñaan ak suñu borom yagal ñu fi lool di ñaan nak ligéel Serigne Touba bi di gëna yok ñoy sant yàlla di sant Serigne Touba mom bés bi ñu ko di si màggal di ko di ñaan yàlla mu yag sax ñu yag ko fekkee ay ati ati at di ñaan yàlla suñu njiit yi fi nek yàlla na len yàlla kàttanal gën leena deugëral ñu ngi sant nag bu baax ndax bés bi moom bésu mbégte la ndax ku ñu xool tey nuñ mel ak nu ñu taxawee tey nga xam ne kontaan nañu wax dëgg yàlla ñu ñaan yàlla nag yàlla gën ñu fee yàggal gën cee taxawal suñu njaay ak suñu papa yi fi nekk ak ñëpp di béere yàllaa koy dogal rek ak sëñ ñu gën a takku rek gën a liggéey te xam ne liggéey bi moom lu si waaye def ren bu déwénee yàlla ful ko nga am lu ci ëpp ñuy ñaan nag képp koo xamante ni na takku rek liggéey ndax liggéey bi kenn liggéeyul kenn sëñ Tuubaa la ñu liggéeyal ñun ñëpp kon nañ leen takku ñu liggéey sama kàddu yu mujj mooy nañ leen gën a fonk rek gën a jàpp liggéey bi te xam ne sëñ Tuubaa daal moo fi nekk ñu ngi sant bu baax sant ñëpp képp ku fi teew ñu ngi lay sant di la gërëm di ñaan yàlla nag màggal gi gën a yokk di ñaan yàlla Tuubaa Mbañeen yàlla na jëm ca kaw ca kanam هم أفسخ الفساق كلهم وأنهم لم يليقوا بالإجابات منها تلازم صبر للإله على جور الحساة جميعا والمصيبات والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مبكي جلتي مبكي طالبي ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di leen sant di leen gërëm seen teewaay ci bés bi ni ngeen fi teewe ci bésu Touba Mbadiène bi sant giñ fi sant Serigne tuubaa at mu nekk ñu di ko fi amal fii ci Touba Mbadiène ci njiital jëwriñ sëñ Alaaji Mbaj nga xam ne ñun bi ngeen di gis fii ñoo bokk ak moom nekk ca piste ba bokk ak moom fu ñuy liggéeyee ñoo fi teew teewal fi waa Ndakaaru yëpp fa tabaarakallaa délégation bu am solo ñu ngi ci ànd ak Aliou Pouy ak euh, Dieye Vieli Maodo Seydi Mor Ndoy tubaarkàlla ku lim da nga juum ak ñi sama ginnaaw ñëpp ñoo fi ànd teew fi ci bés bi nga xam ne bésub sant Serigne Touba la di bésub mbégte nag di bésub barke di bésub xéewal ñuy sant yàlla bu baax ci boole gi mu ñu fi ci boole ñu ñëw fi waaye dañ fee ñëw nag ci kóllëre gi ñu am ak sunu wóllëre wii toog di Alaaji Mbaj di nit ku baax di taalibe dëgg dëgg dëgg dëgg taalibe di murit saadix bëgg sëriñ Touba lool te nangu see sonn te di ko liggéeyal ñu ànd moo waral jataay bi boo ko gisee ni mu mel jóge fa nun ñëpp jóge ndakaaru ñëw fii ci Alaaji Mbaj la ndax ji nañu ko taalibe la sëñ Touba ko ñor liggéeyal sëñ Touba ko ñor moo tax ñu def délégation ñëw ci bës bu mag bii ñew fi fasiyene ko sante le Serigne Touba ki sant ki muy sante Serigne Touba fi ci Mbadiène ñi ngi sante mbokk yépp nak di rafetlu téway bi di rafetlu téway bi gaay yi ni ngeen téwé fi yeen wa piste ba contane nañ ci contane nañ ci yeen torop ni ngeen ñewé fi ci sante gi sedd na xol lu leen Mbaj lebalon rek fay ngeen ko ko tay sun xolam sedd na mi ngi gëreem mi ngi ñaan té ñu ñaan yalla lepp lu ñu fi ñaan ci bëss bi lañ ko suñu borom nangul yalla na yalla def jamm ci réew mi yal na yàlla sotti xéewal ci réew mi yal na yàlla def sutura ci réew mi yal na yàlla barkeel suñu ànd bi suñu yàlla na ko yàlla barkeel yal na yàlla suturaal ñëw aajo bu fi waaye indi yal na ko suñu borom faj jàngoro ju fi waaye indi yal na ko suñu borom saafara yal nañu yàlla may ñu teewe ko déwén yu baree baree baree baree bari te gën a yokk mbooloo mi gën a yokk gën a barkeel and bi rafet na baax na fa na nañu nekk ca piste ba ni nga ñu gisee fii ñu nekk ko fii moom lañu nekk fa ñuy liggéey liggéey jaamu yàlla bu ñu noddee ca jàkka ja gaa yëpp bàyyi lañ doon def ñëw wuy si liggéey suñu borom bi ñëw jaamu yàlla dellu ci suñu liggéey ànd nañ ñoo bokk ndey bokk baay di yëkkateendoo di tegandoo yalla na yàlla saxal mbooloo mi te yàlla barkeel ko yàlla na yàlla dëgëral ànd bi yàlla bu saytaane am ci ñun aajo yàlla nañ suñu borom téyel suñu mbooloo bi suñu ànd bi te cant gi ñu ñëw fii di ko sant si di ànd kook Alaaji Mbaj yàlla nañ ko fi yàgg ñëw yàgg ko fee sant te yàlla barkeel ànd bi barkeel njaboot yi defal ñu sutura àdduna ak àllaaxira fa tabaarakallaa ñu daal suñu xol sedd na lu gudd gàtt alhamdulilah la ñuy wax rek alhamdulilahi rabbil alamin di wax jërëjëf Serigne Touba. qualité yi ci gis moom bu ñu ko doon lim fii ba suba du jeex nit ku yaatu la. bu nu xëyee nun ñëpp ñi mhm. nga gis fii ci buntu place am la ñuy daje teg suñu ataaya mhm. naan ataaya mhm. gars yi indi fa xéewal yi ñoom Alaaji Maam Cerno gars yi indi xéewal yi buru di daw daaru salaam matin lañ ko tuddee bañ nañ ko ba maanaam jataay ba moom Alaaji Mbañ moom wax dëgg yàlla ci ña fu mujj ñëw la fa bokk waaye rassembleur la day dajale li mu am lépp mu di ko bokk ak nit ñi nag alalam boolewu ko kenn lépp lu mu am ku ñëw fii rek da nga koy jéem a fay si waaye lebal si woo ko képp ku fi ñëw teew fi tey rek danga koy jéem a fay si li mu def ci yow waaye lebal si woo ko benn xaar kanam ba mu fa indi woon ba mu fa duggee ba léegi fukki at ak ci ren xamewuñ ko ci changement nam meloon ci tàmbali na mel ba léegi boot na ñëpp ànd naag ñëpp bokk naa ñëpp li mu am tabaarakallaa dañ koy jéem a fay rek waaye mënuñu koo fay man nag moom dañ ne xarit ma dul seede day sama xarit ba mu ëpp ba nga xam ne maanaam li may wax ci moom du nekk seede ndax moom fi mu féeteeg man la ba tax na li may wax moom daanaka dañ ne xarit du mat seede waaye wax dëgg yàlla li may wax yëpp mbooloom yëpp man nañ koo seede ñi fay ànd yëpp ñëw fi mën nañoo seede loolu ci àllaa ji mbay nit ku baax la exemplaire la ku ñuy roy ku mën a ku mën a roy ci moom la ci taalibe ak ci diine bi ak sa mbokk yi yëg-yëg bu bu rëy laa am ci sama euh, sama xol yëg-yëg bu rëy laa am ci sama xol ndax maanaam gars yi ni ñu wuy see nii tey foogu woon ni alaaji mbaj dina leen lu tax ñu war koo mën a wuy see leen nii tey dagg seen yitte yëpp ak lu mu mënti doon fii bari na fi ay taalibe seex tey le ziar général waaye teewul la ñoo dagg seen yitte ndax alaaji mbaj loolu dara munu ko fay moom bu ko xalaatee dina xam ni li ñu def dara mënu ko fay xam nañ ni yëg nañ ko yëg-yëg santiment bi ma am mënu ma ko wax ci sama làmmeñ yëg-yëg rëy na ci sama sama sama xol li ma yëg rëy na ci sama xol ñun daal contane nañ kontaante boo xam ni wax deug yalla bernde yi foko tak wessu nako fekk nañ fi lu ko weesu njart xalaatuñu woon ni bu ndikkee nañ fi fekk lu melni ci dëkk bi wax deug yalla ter nañ ñu déedéet ñëw fi ay at nak ay at at ma ngi ñew waye bu ren bi mom wax deug yalla dafa dafa spécial wax deug yalla daa bismillah, ñu ngi santat borom Touba bu baax di amaat mbekté bu baax baax ci bis bi di jaar fi suñu imam jaar rek muy seigne Fallou li mu wax mun mënuñoo weesu lu ko kawe mm. waxal na la ñun ñëpp mm. muy ñun ñëpp ñu li li ñu tax a teew fii mm. muy sëñ Seexuna mi kenn ku nekk rek boo doon wax ci moom doo xam fooy tàmbalee doo xam fooy bàyyee ndax wax dëgg yàlla ak laabiram ak yaatoom ak baaxam wax dëgg yàlla da ngay soxlee dara sax ñëw ci moom mu def ci ak njàppandal goo xam ne wax dëgg yàlla ngay xam ne kii jox na la lii mais jarul loolu waaw da ciy def xewel goo xam ne wax dëgg yàlla comme ni ko yaa imaam waxee rek day day boole te day day day dimbali ay doomu aadama kon dañ koy ñaanal rek suñ borom defal ko ci lu kawe njortam barkib seerafaal a incha allah rabbi am ndax nit ku nekk rek booy def lu baax suñ borom da lay taxaw te am nañ ci yaakaar bu baax a baax ci jëmmam ji waaw ñun daal ñu ngi sant bu baax comme ni ko imaam waxee rek dañuy ñaan li nga xam ne àndee nañ ko yàlla na suñ suñu borom gën a teg loxo ndax lii dafa am solo nit bu ay nit bu ñu nekkee te daanaka journée bi yëpp ñun ñooy nekk jàmmoo da cee gën waaw ndax lii lii rek wane na ko ndax kenn ku nekk jóge nga fu sori rawatina comme ni mu ko waxee bis bi am muy ziar te bëri na fi ñoo xam ne ay taalibe seex lañ bàyyi nañ lépp ndax la wax ndax moom kon wax dëgg yàlla teg nañ ko fu kawe waaw jox nañ ko jox nañ ko cër waaw waaw bëri na fi ñoo xam ne daal moom macha allah waaw. am di wasoo li man. كل به سارا له ردا دون سوخ دن هند سرسارا له سنائي وريد واني بلا سهات مصهدني من بني ديمان أنشارا لله كل لدى آبار مكرمات من هرتهلنا وفيها جم من سارا إن الذين إلى سرسار قد حسدوا زيارتي فارهود daareeni aw saara yëpp di seer mbokki ñëpp di leen jëme Sëriñ Tuubaa di sof suñu kàddu fi señ fallu daane ak señ Muntaxa rek di xamal ni arab day wax ni kama tudinu tudanu loola bi rek loolu lañ lay fay kon ku nek rek war nga di gor sa diggante jamm yàlla di leb rek kem tulal carton nam gën a ndax bis du ñak te seede du ñak waye yalla na fekk lañu sédé képp koy seede mën waat ni loolu mooy dëgg sa diggante ak sa borom li fi gaay wax yépp maanaam dañoo wax kem li seen lamay attan rek waaye li seen xol ëmb tamit dëgg moo ëpp lu ñuy wax loolu moom lu ñu mën a waat suñu diggante suñu borom la. li nga xam ne nag mooy bis bi nga xam ne moo tax mbokki taalibe yi ñiy bàyyi ko Ndakaaru Mermoz ca piste ba ak feneen fu bari ci goxi Sénégal ñëw nga jéem suñu alaaji mi di Fall wax rek lu ñu la. ci jëm koy fay mais mënuñu ko dab ndax ni mu jàppee doomu aadama yi ak ni mu leen yëgee maanaam dama koy wax toujours ci ay kii ay xew-xewam sëriñ Tuubaa wax ni xob bi fii lay boo dee fii man damaa gën ni foofu la teg nit ñi ku mu jàpp suñu borom kese yi tax mu jàpp la ak jëmmi sëriñ bi ku muy bàyyi suñu borom rekk kay tax mu bàyyi la. ni ñu ko xamee daal mooy ab taalibe la ab jullit xaqan la itam xam nañ loolu ci moom. bis bi nag muy bisu cant Serigne Touba ak Maam Cheikh Ibra Fall loolu moom man damaa gëm ni war na ku ne ndax ni Serigne bi waxee ni dafa ameel Yonent sallallahu alayhi wasallam borob tagg dama gëm ni ñun noonu lañ amelee Serigne bi borob cant man loolu laa gëm waaw. ñuy ñaan nag bis bi ñu daye ci mbootum la in zakartum la azidannakum suñu borom moo ne ku sant ma dooli la. kon yàlla nañ ci dajeeg dooleem suñu borom ba faaw li sëñ Fallou waxee ni maanaam kawe njort gi nga xam ne am na ren yàgg na fi waaye ren kawe na sëñ Tuubaa moo wax ni wa am siin siin sama tey june bu ñëwee rek ñu fàtte démb loolu mooy li am kon ñi koy defit nañ gëm am yaqin ni maanaam at mu jot nañu yéene te mébét def lu kawe ndax sëriñ moom foo ko dàkk rek passé na foofu del yéene di am yéene di sóobu daw jëm ci moom maanaam loo yanu ren bu subaa doole ci bu dee ci téeméer dafa am ji fa yanu ko sëriñ bay yanu day tim rek mu mu sagale la yow sa positif bi positif bi nga am pour pour daw jëm ci moom waaw. te nee nag boo doxe jëm si man ma wax jëm si yow bu ñu ko jëm ci ma daw dajeeg yow yëkkati la ba ñëpp seen la defar la loo man ak loo mënut. kon nag am pas-pas bu di ñu ci moom maanaam jiraay bee rafet na am jéeg boo xam ni sori geeg fii yëpp man bi ma agsee lépp dama ko yëgatuma ci dara te nit nag dañ ne ni maanaam loo ko xam-xam boo demee ba ko fam dëkk rek nga koy gën a xam ñun xam nañ am na cër bu ñu ko jox ci dëkk bi te loolu moo ko jëf. ñaanal suñu borom gën koo kartanal gën a ubbi am xolam ndax am loo am xel a koy liggéey li ma sànq rek nit ki xel mu seetlu la yàlla may nga mën a jëflanteeg ku ne. ba mujj gi maanaam yow am ñoo xam sax mën nañu am ak ci at mi nga am cër bu am loolu xel mu rafet mu yàlla wërsëg doomu aadama moo koy moo koy moo koy moo koy maye. kon ñaan suñu borom may ko xel mu te may na ko ñun ñëpp man moom li fañ fa wax mën a wax ci moom ndax maanaam sëriñ bi la ma jàppale man di daj ci man loo xam ne yàlla xam na ni wallaahi li nga xam ne cant ay weer mu di ma ko waxal dama ceer xam ne ma na rek dama xam ne moom bu ma doon dox it bu soobee yàlla damay dox ba mu lay ma cant gi passé rek ma dëpp rek waaye moom incha allah amoon naa ba suuf ñëw moom bismillahi rahmaani rahim allahuma ya quddus salli wa sallim wa barik ala man laa nawet an axbudaka bi xidmati li wajhikal karim fii Touba wa fi daari salaam wa fi daari minan wa fi daari xuddus wa fi daari salaam farani salaam wal manaan tafriya baax ñëw ji naan mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare di leen ñaanal jamm di ko sàkku ci yeen di ñaan suñu borom bo lañu defal jamm jotaay bi suñu borom def ci tawféex euh, di wax rek ne jeng sala TV mboolem ko dégg mu sanni fi kaddu limu wax ci man ca moom moomee la euh Touba ancien piste nañ fa nekké ku fa ñew da ko gis ndax dañ fa nek comme ben famille. Euh, mu melni ni ñoo bokk nday ak baay juddoondoor ci barab magando ci barab bam yag lool bo dikke da ngay foog ne looloo fa nek fekk na ay xol yu and rek ñoo fa euh lepp nak li ci ëpp ci liko kiko ki euh Imam fallu Diouf mii ci la bokk ak président da président bi nga xamanteni moy président Darou Salam Matin ni Aliou Pouy bi Bill moy Ablaye Diop mo sol baylat bi ni Euh, bés bi li Sëñ Fall wax rek li ma ci gën a neex ren ren euh, dafa tombeek siyaare général fii nii bëri na fi ñoo xam ne Tiwaawan la ñuy siyaar waaye man bu ma leen gisee damaa tiit jàpp moo ne sax danañ ñëw loolu laay wax ci loolu laa lay wax ci maanaam li ñu wax ci ñoom ne moo nekk ci man pour nga xam ne ñoom ci ñoom la nekk mooy jàpp gi ak yëg gi ak fonkeel gi ci ñoom la nekk euh, gannaaw bu loolu wéyee nag may wax ci li nga xamante ni moo ñu fi dajale muy ñun dañu ay taalibe seigne touba yo xam seigne touba rek lañu gëm dëkk fi ci dëkk bi ñu wax touba Mbadiène dëkk fi ba xamé ràññe xam ñun amna ak cant guñu war suñu digënté ak sëriñ bi mu amu bés ku ñu wax baba Ndaw euh lool suma juumalee 2005 la xam nga xam nga bëgg defi fan ta parce que ba ci suba sa mu ñëw fi su kër gi ak guddii ba suñu buntu kër gi ci la génné fekk ñu fa ñu tok man ak señ Modou mi sama mak ak señ Abdou Karim mu ne dafa bëgg ñu taxawal tour de famille Modou ci xel mu rafen ma ak bëgg gi señ Touba ak yittu ju kawé ja muy sama mak ja dal di ko ne tour de famille dafa xat dëkk bi gëna am na murid yoo xam ci famille bi li doon tax mu gëna yaatu moy def ko ab daayira bu ñu liggéeyee señ Touba ñu taxawal ko 2000 2005 at min li nga li tax nga xam ne suñu daayira bi am na baatin bu suñu borom lëm at min ñu ko taxawalee at moom lañ am turu daayira at min ko sa déwén sa lañ tàmbali cant cant gi bañ ko tàmbalee sëñ Moodu mii boobu moom dong nga mën dara ci ñun wala moom dong moom la xolam mayoon mu doon def ci bés bi li man boo ne moom dong nga mën dara ci ñun sax mën naa xaw xat ci nga ci liñ def ay at la ko tey di jënd nag lolu kep ku nek ci daayira mëna ma sédé bu ñëwoon fi kèn du wéd limay wax ben nak lañ ñoon ray booba bobu ñi muñ ko yaatal sax du génn tundu wi ñu ko daan jëk jang sama ni lañ dëkk bi lañ dëkk biñu ñu ba yalla dogal ñun ñi mu nampatal ñu ci lolu ba ñu gind ci sëriñ bu wër ndax mom mi nak nu mel gëna yalla mom la lu bax dong lañu la nampatal ko xamanteni bi mi bi mi wamat sa loxo nan la kaay jébbalu boobu xamoo luy ak jébbal addi ji nga ñëk siyaare sëriñ moo ko moo moo ko yëkkati jox la ko muy sëriñ Modou mi loolu duñ ko fatte ba ila yom yu baasoon waye gannaaw bu loolu woyé tamit mu fexé ba daayira bi ñëpp bëgg lim bëgg mom di ci dox fi ne am ay goor yalla yu nekk ci daayira bi ño ne sant ñëpp waye dana cité sëriñ tur ñom tuddu leen ki ci jitu moy sëriñ abou sëriñ abou mbacc sama wala la ñi ñi ma xam ñëpp xam nañ kook man ndax daayira bi daf cee man lu ma mënul man ndax lim man mooy te mënuma ko mooy sensibiliser nit ñi waxtaan ak ñoom ci maslaa fexe ba li ñu li leen laaj ñu joxe ko loolu man man mënuma ko man bis bu ñu ko jàppee ba nga yëg ko duutuma la soññ man waaw man damay dox rek dem dem fi mu jëm fi mu war a waaye duutuma soññ kenn loolu nag sëñ Abo moom moo ko man moo ci taxaw di coordonné di woote téléphone kenn ku nekk mu fexe ba sa addi dugg ci bis bi ñu tàbbal ko ci waaye dina am keneen ku ma sant sant gu wér koo xam ne doom la ci ñun ci daayira bii la bokk ñu koy wax sëriñ Maadu Mbaj Espagne la nekk moo sëñ Moodu mii ñoo bokk fu ñu nekk keroog bi ma nekkee siyaare dëkk ñoom Fallou Diouf mii addi ji ma dugalal keroog ba ma ko dugal am na ko ma ko wax ko kii de lii mu ma tàbbal ci bi la ko tàbbal muy addi yu bari ak leneen lu mu def loo xam ne bëggul kenn ku ko wax muy sëñ Maodo kooku faw ñu sant ko di ko ñaanal nag bëgg naa ñëm ñaanoo ko aw këyit daal amagu ko pour ñibbisi waaye am naa yéene ci barke Serigne Touba bés bii moom balañ koo defat déwén yàlla na bokk ñu koy fekkee ci barke Cheikh Ibra Fall euh, gannaaw bu loolu wéyee tamit soxna yi soxna yi daayira bii jàmbaar lañ lool jàmbaar lañ lool euh, da nga jigéen ci góor ñi daayira boo dem man ñi ma bokk-bokk da gis ci góor ñu ñàkk Pastef waaye daayira daayira ba pour nga gis jigéen ñu ñàkk Pastef ñoo xam ne la seeni morom def duñ ko def yombut gis ci daayira suñ daayira bi jigen ñi ci bokku ñepp dañu am passé ñoy soñu seen borom kër yi bu addiyee jotee ñuy laaj ñoy njëkk joxé ñom am buñ buñ carnet bi do gis Ben jigen bu joxut addiyam ben ku bokku ci daayira ko joxut addiyam do ko gis buñ woté liggéey niñ ko waxanté buñ ca yeggee bu soobee sa borom ñoom ñepp non lañu takko pour def ko cant bañ ko jappé daw ñun dama dama mobiliser nit ñu ñu Dakar ñu fi sétal dëkk bi ren buñ ge yeggee dañ mëna nyun ko ñun dañ ko def ñu sétal dëkk bi taral ko mat mañ nan jënd diko def diko diko toggé ko ñu ne ñoom ñoo koy dugg ñoo dugg ci forêt bi oti ko loolu pass pas la jigéen ñu ngi leen sant ñu ngi leen gërëm ñu ngi leen ñaanal gan ñëpp nak sama xol sedd na ci ñom seen ak ñew waaye di sant sama xarit bi nga xam ma nga jógee ba Louga and ak soxnam nee ko sank nee ko ñew ak ñëpp neex na ma waaye sax ñew mom yow day pass passif tay ba mo xamé léegi mënut tamat juroom ben benn do nga ci la toll muy mohammed sawmi muy nit ku bax A, waaye nag moom dana xam ne moom tubaarkalla gannaaw bu loolu wéyee tamit euh, ñu ngi ñaanal mboolem koo xamante ni da ngaa jugee ci barab ñëw fii sa tànk yooyu yàlla na ko sa borom yàlla tànk yiw te sa borom yàlla delloo leen ci jàmm ak sago ngeen yegg fa ngeen jëm te kenn bañ a am benn jafe-jafe ci yoon yi ci barke Sëñ Tuubaa Cheikh Ibra waaye tamit nag maa ngi sant mboolem mbokki dëkkandoor yi ñu bokkal dëkk bii. ñu ngi leen sant bu baax ñi nga xam ne dañoo bokk ñoom dëkk bi te bokkuñu pas-pas ñi ay taalibe Cheikh bés bii bu ñëwee duñ ko xàmmee ak seen bés ñoom dañ ci dañuy takku taxaw laxasaayu mu mel ni seen bés la fi ne nii boo fi ñëwoon bu la waxee ne dëkk bi daa am ñeneen ñi fi am pas bu bokkut a gëm sëñ Tuubaa doo ko gëm buñ la ko waxul waaye daanaka mën naa ne murid yi genn wàll lañ fi waaw loolu nag ànd ba dëkk bu dëkk bu rafet moo ko moo moo ko moo ko waral waaw ah, ba tax na ñun ñëpp ñu ngi leen di bu baax a baax waaye ñu ngi ñaanal suñu mbokki bopp yi nga xam ne dañoo jugee ci gox yi fasantikoo yi di ñëw di teewee bés mi at mu jot di jugee ñu mën see tudd rek buñ ci tuddee sëñ Jibril Mbaj dana doy sëkk mu dëkk jugee fi ba caaran ji at mu jot day ñëw ci bés bi di ko yëgal ay nit di ànd ak ñoom di fi ñëw waaye tamit njóobe waa njóobeen taaleen suñuy mbokk lañ faw ñu tudd leen ci turu sëriñ mbay mi ak rekkam sëriñ wak Mbaj di sama xarit di sama lip, sama digënté mom ñi ma wër xam nañ ko euh, ñëw na ci bës bi ñu ngi koy sant bu baax baax baax di ko gërëm di ñaanal jamm di ñaan sama borom yalla bës bi daal li ci dess yalla na sama borom yalla yeggalel ñuko ci sago té lepp sama borom yalla nang ko té def ko yiwu tasaaroo jëriñ mbolëm jullit yi ci barké Seexul khadi ma ngi ñaan ci barké Seex kepp ko yëkkat sa dërëm jox ko kenn mu ci bës bi wala nga jox ma man ma def ko ci bës bi maa ngi ñaan ci barke Sëñ Tuubaa bala waxtu wi den sa borom defal ak yokkute nga yok ba yekku ci barke seul khadim barke Sëñ Tuubaa serafal Faal ah, mu amaan tamit nag bes bi rané luma ci neexat lol muy tew sëriñ murtada musa abdullah sama jëm ju xébu ji dong dey ndeysaan balay sa motax tax mu yi teñ yépp bes ba bu ko yëgalee leg man na ñetti wër mu ne ma ko fàtte su jegesee nag ma wax ba ko gëjee wo ne ko bis baag yoy ëpp na ëpp na ñaari weer waatuma ko ne ko dara waaye ndekete booba am na ku ma ko koo xam ne ma xam da koy lu mu xam lu nekk ci man na ko yëg mu koy wo fu mu toll nan ko bisu baaj ba fu mu toll loolu yittel ak yéene ba dembu ci gudd lañ mo woon bu soobee yalla ñu dana ñëw waaye di sant bu baax dem Serigne Moustapha gey Serigne Moustapha day seut ci serigne Adama gey serigne Adama gey moo jur sëñ Maguette Jama sëñ Maguette Jama jur sëriñ Baara Gueye sëñ Maguette Baara Gueye di di wajuram moom mooy xalifa sëñ Baara Gueye sama borom boole la ñu xamante ci mbaaxu sëriñ Fallou Diouf mii ndax wëllëreem la woon waaye fi ne nangu naa ko ci moom sëriñ sëñ Moustapha <laughs> sëriñ Moustapha fi ne sama sama jógee fii féete Touba gannaaw yalla ci mom moom la mom la mom la mom la joggé moy ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm te di ñaanal gudd fan di ñaanal gu wër ndax fi ne mooy xalifa waajuram wu góor mooy xalifa sëriñ Bara Gueye ñu ngi koy ñaanal gudd fan gu and ak wër di ñaanal serigne Mourtala bu baax baax baax bëgg na it ngeen ñaanal ñu bu baax baax baax suñu mag ji serigne Modou tan borom guddal fanam wëral ko ndax yagam fi mom ak ñun suñu ndariñ la lu baax dong lañuy xamal xalé yi ku ci mata jang mu ne ma xoolal foo ko yóbbu mu jàngi doom yi boppam yi ak sama mag i seeni doom xale yi ku ci war a jàngi nekk di lépp lépp man lay woo ne ma ne diw de ne daa war a jàng waaye nangam ak nangam fexeel mu jàng ma yób maay maay maay taxaw njàngi xale yëpp te moom mii moo ma jox loolu kàddu googu kenn moom mii am na doomam joo xam ne ba ma ko yóbbu ca daara ja daanaka waxuma ci ma wax ju dëgër damaa xëy ne ko day dem mu jox ma ci ndigal ju wér ma jàpp yóbbu. maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal di ñaan sama borom yàlla guddal fanam wéral ko yokk ay xéwalam barke sëriñ waaye ñu ngi sant tamit góor yàlla daayira bi yëpp ak soxna yi góor yàlla yi ci daayira bi yëpp ñu ngi leen sant ak soxna yi ba na kàddu yi foofu lañ koy wàccandee di ñaan sama borom yàlla yeggal ñu suñ sago ci li ci des ci bés bi barke Seexul Xadim maanaam tey jii nii li sàcc gën a bañ moom la ak nit gën a bëgg sàcc ku ko yëg la gën a bañ nit nag ku ko yëg la gën a bëgg ku ko yëg doomu aadama te yéen da ngeen ñëw yëg dëgg yàlla ñëw naa fa ñëwati fa ku ma siy nuyu sax ndeysaan ñaari loxo nga may nuyoo te loolu bàyyi ma xeebu ma ko daal te gis naa pas-pas yi daal maanaam bu ñu lay nuyu nga xam ne lii si xol yi moom ëpp na nuyoo bi rek dafa yéeme te gis naa bés bii tamit ni ngeen fiy teewee gisuma kenn ku ko fiy teewee loolu moom ñu leen ko ak te gis naa it nag jàpp gi ngeen siy jàpp waaw kenn ku nekk di ci def alalam te li may ñaan ma wax wax ñëpp ak di ko wax ñi ma ko bokkat fii dama leen ne bés bii kenn ku nekk buñ tuddee mbajeen buñ ne mbajeen foo mën a nekk ci àdduna bi nga gestoo bés bi ñëw ba jàll te defoo ci sab dërëm yaa ngi ci lu kenn xamul te àddina dafa gàtt te ñun fi mu toll nii dañoo jàpp ne àddina rek tey la te du mbir mi du fii de fële la lima sama benn nijaay dan wax Cheikh Moussa si munima ah seigne Modou mané ko ah ah compte khalid ah, bi ci compte banque yi day ken momuko billahi wallahi wallaahi ta mom moom loolu don wax mom la gem waaw khalid bi ci banque bi nee ma ken momuko ta te na ma wax mom la gem ta ma alal lepp lo xamné ne ko mu res defoo ko ngir yalla amul njëriñ lo fi baye xamul lu koy nit ñi waaw loolu loolu daan na ma ko wax ta li ma wax gars yi wax dinaa ko wax waxaat ko tey jii buñ ne bés bii benn nag lañ fi daan rey tey jii daayira bi rek jëndal nañ seen bopp ñetti nag te képp koo xam ne bokk nga ci daayira bi yaa ngi def sa kër loo xam ne sax côté doxoo ko si daayira bi sa kër daanaka say gan yaa koy gérer seen bopp te loolu lépp taw feex la joo xam ne te xam naa li kii wax ne bés bi baati na ci man loolu man xam naa ko billaahi wallaahi tallaahi bër démb bërki démb ba 10 heures xam moo ne man danaa ñëw fii te lu mat weeru yàlla xam nga ñetti weeri yàlla sàkku ñëw fii laay def waaye xam nga Europe lu fa dugal nit génnewu ko fa léegi léeg ay ñàkk fay dal fa lay tënk ba keroog samedi euh, àjjuma ci suba ay 10 heures ci laa xam ne man mii war naa mën a ñëw ba ma génnee laa dem di làmbatu ba amub bii moom laa wax ma ne leen gannaaw bés bi maa ci teew lu waay sàkkooti billaahi boo ko fasee si bis bi man nga ko am barki borom Touba te yéene dong laa amoon pour teew ci waaw li kii wax tamit bis bi li ko sos mooy sama làmmiñ wii la départ li mu wax ne Baba Ndaw ak Karim ñoom mu fekk fële moom mii mu ngi ñu ne ma ah ñun de dañoo bëgg taxawul taxawal tour tour de famille may leen du ñun ñëpp ay murid lañ ñu ne ma waaw may leen nañ ko def daayira ñu ne ma ah may leen waaw maa làmb sama poos fekk maa ngi sol benn deux pièces bu gris yor kurus nii sama loxo ma làmb sama poos génne 1000 francs jox leen ne leen wër leen dëkk bi ngeen laaj ñu wër dëkk bi laaj ba ñëwee 4000 ak wecc du ma ko fàtti mukk alaaji magu kii moo ko indil ma ko ma ne ko dem leen xool ci dëkk bi ku ngeen wóolu ngeen dénk ko ku ñuy wax soxna Ami Diouf fële moom lañ jëngoon xaalis bi du ma ko fàtti mukk ma ne leen jeunes yi si dëkk bi kan moo ci mag ñu ne ma diw ma leen woote leen réunion ni ngoon am nañu réunion këram billaahi wallaahi talaay nii laa leen ko waxee woote leen ne am nañu réunion këram ngoon ñu ñëw ma gaaral leen mbir mi ñu d'accord ci ne ma léegi turu daayira yaa koy joxe may leen mukk may leen ñun suñuy bàyyi fekk nañ leen ñuy murit waaye si kër sëñ Bay Mbuuma Njaay lañ tënku nañ dem sàkku ji foofu turu daayira amul lenn loo xam ne woote naa ko si jëmale ko sama bopp déedéet man xamna ni li may def manam wat ko wotelon loon ko sama bop man na am du actif yi billahi wallahi tallaahi ma ne man ba am turu bo fi fekk na ma tukki dir bi ñu waxee ak ba bay turu daaira bi tab bi ñu koy tubee dem ci seigne alaaj ndjay mi nek mbuma khalifa seigne bay mbuma ja waaw musa ko seigne saaliw mu tuddé ko masalikul jinan bo ma ngor lam wax lam wax ca jan ak nak yoy yep bi taxaway ba ak yoy yep amul solo ñun sëriñ bi lañu liggé ta xam nañ kan moy sëriñ bi am na xam si mom bopp waaw waaye sëñ Tuubaa mom neexu a xam waye am nañu xam si mom. waaw yéen ñi nak mom man mënuma leen fay billahi wallahi tallaahi japp na leen bu wér a wér a wér a waxna ko it ki départ bi waxna ko li ñu indi salum ñun ñun mbajeen ñu indi salum waxna ko ko nee naa ko li fi indi woon Maam Mor Anta Sali indi fa ñeneen ak ñeneen ñu sant xummaak ñu sant busaak kër wàkk yi ngay dégg fii yëpp ma Maba joxu la moo fi indi woon suñu maam soo wootee Maba Diakhou moom 1861 ba c'est la suñu maam woon fii mu ngi jógee bu ñuy wax mbajeen géneen sa sa Linguère fala maanaam bu ma ko tuddee xëy na nit ñu bari nañu xam fala Aly Ngouille Ndiaye dëkk tey mooy ab dëkkam boo bindoon mbajeen géneen tey nii photo Aly Ngouille Ndiaye ngay gis sa kaw ñun suñu maam fa la jógee woon ñëw Saalum gii sa xare ba dégg si histoire it ñu daan dugal ba xal wala lan mom ci la bokkon ab taw mom la ko tuddé muy ñu wax wak jaara wak mo dégg ma la wak batop olof la mom jam ñi euh, yëfar yi mu daan di len wak ni ak loxom di len wat di len tuubal lool mo indi batu wak géwél yi di ko wéy naan ko wak ma sa somba wak ma ca nangam lool mo indi batu wak dekk yi ngay wak fi ay wàkk jaa kër nguna ak yoy yep ci Maba lañ soso te da naka li serign ci senegal dalena dalen comme ci monono indi rek indi le pour nga and ak mom ci ay xare ay xare lañ fi doon def ak tuba bi ak ak ak ak ak ceddo yi serer yi sin la daano nak mom Maba ma ngi deglu si serign Bass xom mu ngi netali na bobu mom manam stratégie bi mu duggee woon biir siin moo moo daane te kiwul ci la daano waye bam mu booy bàyyee seer mati bam fi baye mu dem mu jigi jaxatu tuba bi ànd ak yi ñu ci bari ñi sax amna ño ñoo sax mo len ray ko wat ñi ñun suñu maam na dafa dox dublu bi penku dama sañ ci tamanaani fa la wacce armée lam nga fa luma am yene nak dem fa mom mom la laa chaque année moo ko nag tukki mom day teunk nit waye bëgg na fa dem ak ku ko bëgg rek ci famille bi mo ñu indi salum de dégg naa ba muy ñëw fii it lool mo ma ba ko fi om mu ñëw fi comme ni fi serigne ci ñewé won si ñu ko daan duggal xal wala bok motax bes bi li nga diine la doon taxaw bu ñew salum ba serigne bi it ay domum dañoo wuy sëriñ bi suñ mag bi suñ tubaa am wootee ay doomam dañ ko wuy boobu booba moom wàcc na bañ denc ko caareen wàkk jaaram ka doon taawam moom ko tuddee woon booba mbuusa Moustapha fi nekk ak Samba ak Jabel Kumba Samba Yacine Moustapha dem kii Moustapha ànd eh, sëñ Boy Mbuuma xomaag fekk fa sëriñ ba sëriñ bi ne ko boole naa la kii bu la gërëmee gërëm naa la sëñ Samba Yacine mu boole ko ak ama ama faa jama amadou faa jama ñang ne ko bu la gërëmee gërëm naa la sëñ bay mbuuma it kaka sëriñ bi booleeloon it cël ma xala nekkoon si la la sant moom it da ko ba mu ko fekkee foofu da ko ko bu la gërëmee gërëm naa la kërim kumba si boppam fii la dëkk fii la dëkk ay doomam mangi fi ñu ngi si daayira bi ñu ngi si lépp moo ma nettali lii ne ma Moustapha jaara dem na dem na xomaak ànd ak sëñ buumba ma saakob xorom la yeen woon ba Mauritanie xumaag waaw kon nak mana bi manam dama japp ne barke serigne bi rek mo ci nek ñukoy ñun dañu manam ay mission la ñu ci wara dox rek waye xamna ne li xamna li tax sax mu gëna neew ni ne ni ay ñak gudd fan nit am ci comme paté guddul fan mbuus jaara nonu keneen nonu keneen nonu danaka bañu génné aduna ñu ci bari ñi seen sama bàyyi seen ni jaay leen yar xam nga ainsi de suite yooyu ci gëna ki dal mo xamna ne mo tax deug deug nañ ko warona a taxawoo ko waaw ay gatt fan da ci am waaw ah waxtaan wi nag wax wax dëgg yàlla sama xol dafa sedd rek waaye mënoon naa see ñàkk wax sax ndax di ñëpp wax nii mënuma ko romb ah sëñ Modou Badji li wax nii rafet na lool dëgg la sëñ Dabo it macha allah xam naa ne piste ba ngay nekk amul ñu ma ci ñàkk xam fii ndax du benn yoon laa fa ñëw du ñaar yoon laa fa ñëw du ñetti yoon laa fa ñëw ñëw naa fa ñëwati fa ñëwati fa te jëmm ji moo tax bis bi boo gisee mu neex ma dama tukki woon waye bis bi moo tax ma wàññeeku dama ran tok ba ne suba la koor gi ma dogu ñibi sama kër waye bis bi mané suma andi ma dara hit na ñew tew ci bis bi ndax ñi sama rak la ñep ta amna na cër buñ ma tek jaral nañ ma lu ne jaral na and ak ñom ci lu ne pour nexe dana and ak ñom bu naqaree dara ñom bañ koy commencé melutoon ni ta tay gis nga ni mel sha allah ku ne nga bëgg ci ngi ñew ba tay ku sant Mbàkke ñëw na fi di doomi sëñ Abdoulaye Mbàkke kon lolu yokote la way du ak wàññeeku kon liñ liñ liñ jëf ñom ñom ñu ngi koy gis liñ jëf moom ñu ngi koy gis Modou mom li wax ci askanu Mbadiane gogu deug gu wér peng la di nga Samba yasin Mbaj mom mi wax mom mo jur sama baay mus Mbaj mu jur ma sëñ sëñ Modou Fadi Mañang bam bam bam liggéeyee ba Samba Yacine liggéeyee sëñ Modou Fadi Mañang ba dem ci sëñ Tuubaa diko ñaanal sëñ Tuubaa dafa dafa jël malaan mu ñuul mur ko sa daal di ko li nag ma samba samba mbaj looy gis mu ne ko sëñ bi fi ni nii fii ba Banjul melentaan fii dox maa ko gis sama maam ànd naa nit ba mu yàgg ñaari nit di ngoro mu xoo kenn ki ne ko yéen kuy ngoro ci yéen mu ne ko kii mooy ngoro mu ne ko pourtant kee lay ndaw doom te moom ngoro ànd ngoro la xam nga kooku ko borom xam-xam la woon nit muy ngoro mu ne ko yow doo am moom doom kenn lay am ak doom ñu toog ñetti weer waa dee kële liggéey ab liggéey ba pare mu dem mu ne dekk ko Ndara mi ngi la dëkk Amar Sarr lañ koy wax ay doomam ngi fii di ma dégg suñ ko seetaanee te la xam li may wax dëgg la mu amoon moom mu ne ko bu ngeen da ngeen am njaboot da ngeen da ngeen gudd fan da ngeen yàgg lool Amar Sarr bi mu dem juróom-ñetti fukki at lañ ko tàggee ak nangam tey seen yaay ba léegi mu ngi fi kon loolu xam-xam la dafa am xam-xam boo xam ne nii daf kuñ ko ko dañ ko ko sol am xam-xam boo xam ne ci ndeyam la ko nàmp kon loolu xam-xam la sant nañ bu baax nak gërëm nañ bu baax jotaay bi yalla bu mu doon ben yalla na yok yalla na jëk ba khalifa kullu murid di ñëw gi, ci penc bi jombul leen ndax ay ndawam liggéey nañ ko ñi ngi sant yalla bu baax nak man nak dëkk bi dama koy wëlëg ben ndax dëkk bi tay tay tay ñi fi ne ni mod mi ma ngi magam ñoo maase mako mag tuti kon fi ki ñi seen khalifa la tek nañ ma fa nak tek nañ ma fa baax ndax buñ ma gisé dañ ma formal dañ jëkëti seen alal jox ma bis bi fa ma fekkon mu tukkaay bis bi jamono bu ñewé dana ut dara lu ma indi indaale ko amna na benn sax ma ñëw fi indi ay ganaar ak sa rek mom la reeree ñu né yap bu ci mom ñu fal ko réel ganaar man ah, kon siar bi mako mom kon lolu pas-pas la su fekkoon ne tey doole fa am ci man billahi wallahi lepp lu ñu def fi mbajeen def comptable def te yalla ko suñu borom bi tek suñu loxo bu baax da ngeen xam wa rahmatullahi taala wa barakatuh صلاة كاف كفاهم كل خمات على المشبع يوم في الكرماء صلاة شاف هم من دسيسات DSTV ñoo ngi lay ñaan nga abonné nga bës ko sa notification bi loolu mooy tax vidéo bu dugal rek nga man cee jot leen fàtte aimer partager jaa ngeen jëf anina ba iblisa fi bahri ma yomba